man la Saloum Saloum maa représenté Ikri HLM ñoom ñoo ma yebal pour ma ñëw présenté wu mais li may mën a wax mooy président na xam ne Ikri chef Ikri ñoo ko yor ñoo xam jafe-jafe mbër yi ñoo jàppale mbër yi ñooy sonn ci mbër yi ñoo xam ñaata mbër la Ikri bu ne am kon waruñu joxe kenn te joxuñ mbër promoteur boo ko joxe xaalis te mbër yi wuñu moom lu luy bi di jëriñ. mais bëre mbër la mbër booy jàppale bëre mbër nga war a njëkk a jàppale. nañ jàppale écurie yi jàppale chef écurie ku yor écurie yi nga ñëw subventionné ko laay wàdd moo ko daan def bi mu fi jugee ba léegi amul maire buy subventionné écurie yi te loolu daraan am chaque année depuis Abdou Diouf ba ci laay wàdd ci Macky Sall rek la amagul ASC football yi rek lañ ko jox mel ni mbër bokkul ci Sénégal. du dëgg nañu boole ñëpp ñu yem ñu dëb doon benn xam ne Macky Sall yàllaa ko fi teg pour mu nekk suñu njiit njiit nag xam nga ñëpp la fi nekkal hmm. waaw jërëjëf